bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog noonu duñu seetaan noo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom mu gën ko fee yàggal lool te gën a doole ak wéram di am mbégte di toog fii ci jataay bii ci ndigalam jàkkaarloo ak jëwriñam ji nga xamante ni bii moom lay liggéeyloo ci digganteem ak daayira yi ak taalibe yi ci wàllu ziar yi mu di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif mu feggoo ak. bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi ñu di ko ci jàppali ngir yombal aw doxin ak dimbale sunu bopp dimbale sëriñ bi moo tax ñu àndandoo ak sëriñ Moussa moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Basirou di seen jawriñ ñu fas yéene yëkkati kàddu yoo xam ne dinañ leen ci mbooleem ku ñëw di siyaare si moo xam nga yor ab daayira moo xam nga beru yow kenn di siyaare si doxin wi nga xam ne fas nañ ko yéene ànd ak taalibe yëpp te bëgg ku ñëw loola jàpp ni ci yow ba la nga bëgg nga man koo am te benn fitna du ci ànd loolu moo tax Serigne Cheikh Abdou Mbacke Serigne Cheikh Abdou Latif bëgg a yëkkati ay kàddu ci turu Serigne Moussa ci ndigalul Serigne bi ñun ñëpp ñu maa si déglu ko. ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha mi jëwriñu liggéeyu Serigne Touba bi waa ji waaye ci ndigalul sunu jëwriñam mi Serigne Moussa Nawel Moussa Moussa Bassir mi jëwriñ yi Serigne Mountakha ji taxawul liggéey bi mu yónni nu ay kàddu yoo xam ne dañ koy jëmale ci bokki taalibe bi yëpp rawatina bokki taalibe bi yi nga xam ne dañoo am yéene di jóg di fekk si Serigne bi fii Touba di ziare si rawatina ñi nga xam ne dañ ay daayira yor ñi nga xam ne dañoo jiite ay daayira am yéene di ànd ak daayira yi di ñëw Touba di siyaare si mbir mu nekk nag Sëriñ Muntaxa noonu lañu koy waxee buñ ko noosee rek mu yomb yóbbu kon sëriñ bi gënu waxtaan bi mu waxtaan ak noonu jawriñ yi ne nañu seet nu liggéey bi gën a yombe ci taalibe yi ñëw gën a yaatoo nun itam nu xalaat ci nu muy gën a yombale sëriñ bi ab liggéeyam te loolu suñu liggéey suñu ndimbal lay doon ñëpp bu nu ko defee noona loolu nag moo tax ñu am ay kàddu yu ñu bëgg a yëkkati ci ndigalu sëriñ Moussa jëmale ko ci bokki taalibe bi yëpp waxaat nañu jiite daayira yi ak ñu ñëw di seer si loolu nag biñ biñ ko xalaatee gis ko liñ gis mooy faaw ñu seet ay bis yi ak waxtu yi nuñ koy tërale ba kenn ku nekk bàyyi ci xel ba buñ sàmmoon teg tëral yooya dana yombal ñëpp yombalal ñëpp bis yi moom naka jekk talaata ak àllarba sëriñ bi da ko ñaanoon ñu may ko ko te ngir mu di ko lijjanti yittee biir kër ga te loolu kat nam demee man mii maa ko njëkk ne ko ndax ñu la ñaanal ay bis yoo xam ne da ko mën a lijjanti sa yitte yu sew sewaan yi ndax duma la ko ñaanal sëñ Moussa sax laa ko waxoon mu ne ah du ko ñaan waaye bu ngeen ma ko mayee itam ma jël kon loolu mooy passeefam ak yitteem tax na du bëgg wàññi dara lu mu jàpp na ci liggéey sëriñ bi la waaye liggéey yami liggéey biir kër yi këram itam dara génn ci sëriñ bi bi ko waxee sëriñ Moussa na ko sëriñ Moussa wax ne ko kon nañ la may talaata ji ak àllarba sëriñ Moussa sax yërmandeem daa taxoon moo ko sëriñ bi ne ko nañ boole altine ji sëriñ bi ne ko altine ji moom nan ko liggéeyi rek talaata ji àllarba ji doy na kon sëriñ bi bàyyi xel taalibe yi ak yërëm leen ak yittewoo leen fi la mën a yem jëwriñ yi itam mu tàmbalee sëriñ Moussa lépp luy yombalal la sëriñ bi tey dimbali taalibe yi loolu rek moo ciy xalaatam moo ci yéeneem moo tax wàllu ziar yi nag ñoo am ci xalaat yu ñu bëgg a leeral ginnaaw boo xamee ne talaata ak àllarba moom mayoon nañ ko sëriñ ba noppi bañ bàyyee ko sëriñ bi mu ne ko toppatoo yittey biir këram di tàmbalee kon alxames ajjuma gaaw dibéer altine yooyu mooy bési liggéey yi nga xam ne sëriñ bi da koy xëy si kër sëriñ Tuubaa gi di fi taseeg taalibe yi di saafoonteek ñoom ci biir loolu nag am ci ay xalaat ak i tëralin yuñ bëgg li ci njëkk mooy balaa kenn ñëwati dañ ko jox ay numéro yu muy woote ba noppi sëñ Fallou Galass mi dana wax numéro yooyu bu ca wootee day wax moom su fekkee jàppoon na bis ñu seet bis booba lim bañ ci war a jël feesagut ñu bàyyee ko bis booba su fekkee jàppoon na bis ñu xool bis ba te bis ba lañ ci war a jël ci ab lim feesoon na ñu xamal ko ne ko bis boobu fees na suba bis sàngam la bu la soobee mën ngaa ñëw wala ñu bàyyi ko moom mu tànnal boppam beneen bis waaye foofu la ñuy tàmbalee njëkk a bis bi itam nun nooy xalaat ñaata daayira la gis ne dana jàppandi ci bis bi buñ ko jëlee daayira yi danañ mën a jàpp jàkkaarloog sëriñ bi saafoonte moom sëriñ bi mën a waxtaan ak ñoom sant leen gërëm leen ñaanal leen ndax bu ñu bàyyee ñëpp ñëw bis bi buñ jëlee daayira yu lim bu xaw a kawe la muy jur mooy mbooloo mépp duñ mën a gis sëriñ bi nañuy mujj def mooy jëwriñ rek ñooy dugg ci sëriñ bi joxe at yi ñaanal leen mbooloo yi duñ gis sëriñ bi te boobaay it dana am lu mu xaw a métti ci mbooloo yi itam ndax jógee dëkk bu sori fajaroo fa ne ci kaar ba bëccëg nga egsi yenn fi ba ngoon mu ngi ñibbiwaat dem Touba te seenoo sëriñ bi dina di bëgg a dis yow te bu fekkee nasuñu ko itam gis boobu gis boobu dootu yomb loolu lépp nag kon bëgg lu yombalal taalibe yi rek lañ ci jublu ak bëgg itam képp ku jóg bu ñëw Touba ngir sëriñ Touba ba ñëwee Touba sa aju faju la ca dolli ko waat mooy sëriñ bi itam ñii mu soxlaa boppam ci talaata ci àllarba ji ñu la am yeneen waxtu yi muy soxla boppam ci bis bi ñu bàyyi xel ne kon sëriñ bi mën nañoo jàpp ne di tàmbalee une ba trois mooy bis yi mooy heure yi muy euh, ubbi di ko recevoir taalibe yi kon daayira bu bëgg ñëw nga fas yéene texe fexe teel a jóge fa ngay jóge boo egsee ñu man laa dalal nga toog ba diggante boobu nga man cee sëriñ bi ba sëriñ bi bu fatoo trois heures ñu jéggal ko ci ngoon gi ndax ngoon gi yi muy war a def ci boppam ci am njàngam ci ay kurusam ak yu ni demee da ko dul mën a boolee génnaat ci ngoon gi te daayira bu egsee digg ba cëg ñu dalal ko mu fekk sëñ bi fatoo mu bëgg a demaat bëgg nekk sëñ bi ci ngoon gi bëgg sëñ bi 6 heures ba set heures bu bëggee génn ñëpp fu sori dana métti moom dana guddi te sëriñ bi it du mën a génnaat lu dul loola ndax li li ko war ci diggam ak boroomam it day bëgg dara du ca des. lu mel ne alxames ak ajjuma daayira yi nga xam ne ñu ngi ci biir wala ñu Touba mën nañ leen di ajjuma dafa gàtt faaw sëñ balaa mën ubbi 2 heures demi lay doon te loolu boo jógee fu yi wala daayira yi bari itam boobaa day andiwaat andiwaat fitna ci ñëpp bu defee gaaw ak dibeer nag foofu daayira mën a jógee. mën nañ ko jóge jóge bu sori mën nañ leen waajal ñu ñëw bu ñëwee ñu mën a sàmmonteeg waxtu yooyu danañ mën a amuk dal mën a siyaare mën a xewlu mën a wàññi ko ndànk altine ñu ko bëggoon a bàyyee mooy yenn délégation yi ak yenn kilifa yi ak yenn mbooloo yoo xam ne bëriwuñ te ay kilifa yi kese lañ bu ñëwee altine yi mën a toog sëñ bi mën a jàkkaarloog sëñ bi mën a wax ak sëñ bi yitte ji leen tax a jóg mën a delluwaat si jàmm soroxo soroxo ji daal lañu bëggoon mu wàññi ñu bëgg koo nas te buñ ko nasee noppalaay ñëpp lay doon njëriñu ñëpp lay doon. kon ñu xam rek ne diggante talaata ak àllarba moom ku fi ñëwit doo gis sëriñ bi ndax sëriñ bi da koo nekk ci yeneen yitte te loolu jëkkewut ci moom mbooleem way-juram yeeg magam yi mu fi wut yëpp xam ngeen ne am na bis yu ñu daan ñaan ngir ñu may leen ko. tayit nit ñaar da ko sekk moy liggey seigne touba bi mu sekk ñëpp nak waye njabot gi ko seigne touba denk nak sun borom jaarale ko ci ay loxom tamay yor seen responsabilité te yoy yar yëpp moy bëgg ko lijeenti te bëggut ben dess ci ginaaw motax tax mu yalwaan talibi yëpp ñu may ko talata ak alarba mu nekk ko ci ay yitem man na nga jog ñew Touba sëriñ bi ñe ci tool ya man nga nga ñew fekk Touba bi fatu kon li gën talata talata ji ak alarba ji mom kenn bañ a jéem a lijjanti fu sëriñ bi ne te bàyyi ko ca lam nekk kon loolu lu leer nañ la mu des altane ñu bëggoon mbooleem ñi nga xam ne dañ def ziare individuel mooy kenn nit ku jóg ñaari nit yu àndoo kilifa gu bàyyi koo ci kër xam ne altane jooju mooy gën a libre ci ñoom buñ dikkee danañ mën a sëriñ bi su ko defee altane jooju ñooñu it bàyyi ko xel bu baax bañ a dàkk ne damay dem ci àjjuma ja te fekk na lu ëpp ci daayirey Tuubaa yi ñooy gën a bari mbooloo ndax ñoom paas du leen war dara du leen war te gone yi danañ ci bari su ko defee alxemes ji ak ajjuma ji xeeti daayira yooyu yëpp mën di ñëw fii su ko defee sëriñ bi dana leen mën a recevoir jàkkaarloog ñoom ndax ku jàkkaarloog sëriñ bi sa ajo faju su ko defee gaawu ak dibéer nag nga xam ne mooy bisi feet yi te lu ëpp ci daayira yi jóge ndakaaru yi jóge bitim réew yi jóge eh, fu mu mën a doon lu ëpp ci gaawu ak dibéer la ñuy ñëw su ko defee daayira yooyu ñu xam ne gaawu ak dibéer ñoom ñëpp mën nañoo ñëw ñu recevoir leen waaye mbokk yi ñu bàyyi xel bu baax a baax juróom-ñett fukki daayira sëriñ bi ubbi une heure deux mu war a julli tisbaar te faaw bu jullee dana def ci kurusam lu mat fanweeri minute soo ko bëgg a génne jàkkaarloo waat ak nit ñi te war nañ leen a jox ay xéwal te bu tàkkusaanee war naa fatuwaat war nañ ñoo xam ne juróom-ñetti fukki daayira recevoir leen ci du yomb moo tax ñu bëggoon bindu gi moom doonut lu mën a ñàkk kon numéro téléphone yi ñuy joxe képp ku bëgg a jóg siyaare si moo xam nga nekk Touba moo xam ngay kilifa moo xam nga yor ab daayira ak bu mën a doon bëgguñ nga bette ndax gan du bette nañ ngay woote su ko defee danañ la mën a leeral waxtu yi nga mën a ñëw boo boo ñëwee gis sëñ bi te it dem Touba te gisoo sëñ bi moom li ñuy wax ne li àjjanay neex neex gis yàllaa ko dàq murit itam ku mën a gis te gisut sëñ bi aajo ju faju la ci nun te bëgg nañ ngeen di gis sëriñ bi sëriñ bi di leen gis kon day leen di bindu ñuy jël daayira yu ko yam sëriñ bi génn jàkkaarloog ñoom yéen ñëpp seen aajo faju kon loolu bokk na ci leeral yi nga xam ne doonut lu mën a ñàkk ci taalibe yi kon yaakaar naa ne bokk yi wax ji leer na nañ ay leeralaat dana ci am ci yeneen i jataay lu mel ne ci yeneen télévision yi ak rajo yi numéro téléphone yi ñuy joxe ku ci woote da nga fekk na ñooñu ci biir nas bi bokkoon nañ ci waxtaan wi fekke nañ ko xam nañ bis bi ñu mën a recevoir bi kuy woote nga teel woote bàyyi ba deux heures nga ne naa woote xam ne maa ngi ñëw it boo ko wootee loolu day bette ki war a ñëw suba daa war a woote ne damaa bëgg a ñëw gaawu ki bëgg a ñëw altine woote dibéer ne damay ñëw altine ki bëgg a ñëw talaata woote altine su ko defee bu fekkee lim ba fees ñu ne la bàyyil ba bis sàngam wala seetal beneen bis waaye bis booba fees na suñ ko yëgee danañ la mën a teel a wala barkeelu it xam ngeen ne sëriñ bi su bëggee di wax ak nit ñi bëgg di tefli ci butéel yi di tefli ci bopp liir yi loolu dana xaw a bari kenn ku ci nekk yëkkati soo nam ne sëñ bi ñaanal ma sëriñ bi def na ñaanuk boppam te nga sëñ bi def moo gën ci nun gi tànq li muy baax baax nga sëñ bi fàggul boppam di ñu ko jox ko mooy sun aajo ci la sun aajo ju faju ne kon sëriñ bi def na ay ñaan yoo xam ne bàyyi na ko fii daayira bu siyaare danañ la jox ca ñaan yooya boo demee nga sëddale ko waa daayira ba ñu seq ko ñoom ñëpp am ca pas-pas luñ ca fas suñu borom dana ko def kon loolu leer na nañi numéro téléphone yi nag ci jëkk mooy numéro téléphone Cheikh Abdou mu sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdou Latif mënees naa jël numéro téléphone am euh, di 77 576 58 76 76 538 16 60 76 538 16 60 bu dee daayira buy bind wala wax ju mën a doon seriñ bi dana ci jot wala ñu woo sëñ Lamp Ndiaye mi ngeen xam ne moom ngeen fekk ci mbaar mi te muy bind daayira yi 77 la 617 35 39 77 617 35 39 wala 76